mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom mi ñu wërsëgalaat ñu daje ci ab néegam di fas yéene jël benn bind ci ab téeréem tey jii ñu war a dal fukkeelu aaya ci suratul hashr fi baram bi di waxe ni wallazina jaa'u min ba'dihim di fàttali it ne àllarba ji mooy fukkeelu fan ak juróom ci li nga xame ne nii mooy weeru rajab sun maam yi di ko wax ndey koor ñu tombeeg le 16 février naam ci li nga xame ne nii mooy deux mille vingt deux ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di ko ñaan mu nangul ñu nangul it mboolem ñi nga xam ni dañ koy nar a déglu ak fu ñu mën a nekk waaye fayal ñu ñi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom na doon suñu télévision biir Islam TV ak yeneen site yi nga xam ne dañoo aju ci jàkk ji yépp kon incha allah su dee Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk barakallahu fikum aouzu billahi min asheytaani rajim suñu boroom kon mu ne ña nga ña nga xam ne ñoo jiitu woon wallazina jaa'u min ba'dihim ña nga xam ne ñoo ñëw ca seen gannaaw yaquluuna rabbana axfir lana ña nga naan ay yàlla yal nag ñu jéggal wali ixwanina allazina sabaquuna bil iman ak ña nga xam ne ñooy soñu doomi ndey ya nga xam ne ñoo ñu jiitu ci ngëm wala tajcal fi qulubina xillan lillazina amanu yàlla boo def ci sunu xol yi benn noono gu ñuy jàppal la nga xamee ni nii mooy dañ ña gëm rabbana innaka raufur rahim ey yàlla yaay ki am ñeewanti ci say jaam ca yaa leen di yërëm alam tara ila alladina naafaqu moo tax gisoo jëm ca ñi nga xam ne dañoo dugg ci naafiq yaquluuna li ixwanihim alladina kafaru ña ngay wax seen doomi ndey ca ña nga xam ne dañoo weddi min ahlil kitaab ca bokkoon ca ñu jotoon téere ba la in uxrijitum la naxrujanna maakum su dee dañ leen a génne ñun dañ génn ànd ak yéen wala nutiu fiikum ahadan abada ca duñu toppi ndigalu kenn ci lu jëm ci yéen ci kenn ku mën a doon ba faw wa in quutiltum la nansurannakum buñ jógoon di leen xeexit ñun dañ leen dimbali wallahu yashhadu innahum la kaazibun doonte yàlla ngi seede ni ñoom dañuy fen rek ñooñu nga xam ne ñooy yahud yi la in uxriju la yaxrujuuna maahum suñ leen doon génne naafiqi duñ génn ànd ak ñoom wala in quutilu la yansuruunahum ba doon dañ leen di xeex duñu leen dimbali wala in nasaruhum ba doon te ne dañoo jóg di dimbi di leen dimbali it la yuwallunna al adbaara summa la yunsaruun daan dëddu wane gannaaw ci kenn du leen dimbali mi ngi noonu mbokk julit bi ñu fi mujjee daje àllarba ji wees suñu boroom mi ngi ñu doon won ñaari xaaj ci xeetu lislaam bi ña nga xam ni mooy ña gàddaay yoon fekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Madina muy muhaajiruun ñaareel ba mooy waa ansaar ñi leen teeru woon dalal leen aar leen séddoog ñoom seen lépp suñu borom yàlla ne ñooñu ñooy ña dëggu ñooñu ñooy ña nga xam ne nii ñoom ñooy ña texe léegi nag muy wax jullit yi ñëw seen gannaaw nga xam ne ñoom duñu ay sahaaba bokkuñu ci muhaajiroon bokkuñu ci ansaar loolee mbokk mooy attaabiin baba ila yawmi diin képp kuy jullit ci ñooñu nga bokk ñooñu bokk na lu ñuy ñaan yàlla yàlla yàlla nag ñu jéggal te jéggal suñuy doomi ndey ya nga xam ne ñooñu jiitu ca ngëm mu lay jàngal ne booy ñaanit jëkkal ñaanal sa bopp yonent yi yàlla won ñu seeni ñaan da doon ibrahima nuux ak kum mën a doon dañuy ñaanal seen bopp waaye li nga ne it suñu doomi ndey ya mbokk jullit jullitay mbokkam na doon da ko jiitu ci biir suuf wala fu mu mën a nekk say mbokk mooy sa mbokk jullit ixwaanina ñu xam ne it mbokk ñooñu nga xam ne ñooy ñu jiitu ñoom ñooñu jiitu ci ngëm gi jiitu ñu ci ngërëmal yàlla ñu war leen a ñaanal mu commencé ci ñan commencé ci muhajirun ak ansoor waaye ña leen topp ña leen topp ba suñ jamonoy tey ñun ñii amu ci kenn ci ñun koo xam ne ab sahaba ko jàngal sahaba yi dafa am génération yuñ jàngal ñooñee jàngal génération yi ci topp génération yu topp ba daanaka ñu ngi nekk ci ay quatorzième masse bu dee dañuy jàpp masse muy un siècle ñooñee ko doon jox joxalante diina ji ba mu yegsi ci ñun yal na yàlla fayal ñu leen waaye itamit mbokk suñu borom mu ne dañuy war a ñaan yàlla jéggal leen loolee di dàq pas-pasu quatre-vingt-dix pour cent ci ñi woote woo diine yahud nasaraan julit ñépp ci bokk yam mbokk lu bari ci ñiy woote woo diine dañoo jàpp ne sëriñ soosee nga xam ne ñoo jiitu ñoom de rew nañu texe nañu dañoo war di barkeeloo ci seen tur rek di leen ñaan di leen yaakaar amma ñaanal leen loolu moom déedéet te wóor na ma ne Bilal Thiam mi su ma ko joxoon un million ñu mu la dem biir kolobaan ñëpp di ko dégg mu ne sëñ diw yàlla na ko yàlla jéggal boo moytu loolu ngay mujj a wax ndax loolu ñooñu kenn di leen ñaanal jéggal sëñ diw yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla yërëm boo ko waxee ñu rey la loolee mbokk nag njuumte la bokk sëñ diw lu mu baax baax mun te gën Aboubacar ak Omar mun te gën Ousmane ak Ali te ñooñu la suñu borom ne dee dañ leen ñaanal yàlla jéggal leen yàlla yërëm leen muy wane it ne mbokk julit léegi-léeg nga dégg histoire yu xewoon ci sahaaba yi léeg-léeg sax nga dégg ku nekk ci rajo yi ak télévision yi di wax li moo xewoon Karbala li moo xewoon Siffin li moo nangam li moo nangam mbokk loolu jaaduwul xam nga lu jaadu la nga xam ne saaxibi risaala wax na ko ci risaalaam ba wa yajibul imsaak fi ma shajara baynahum sahaaba yàlla doxoon seen diggante dañ cee war a téye suñu làmmiñ fekke wuñ ko ba di ko jugé borom xam-xam yi ne comme yàlla musal nañu ba suñu jaasi taqul ca deret ja daañu fexe ba suñu làmmiñ du taq ci seen der ya gis ngeen su ko defee ñu ñaanal leen na am histoire boo gis am na ko tooñ am na ko juum waaye suñu borom ne nañ leen ñaanal ñoom ñëpp ndax ñooñu ñoo jiitu mu lay wañil ne mbokk julit da ngay ñaanal sa mbokk julit bokk na lu ñu gën a yaakaar ñaan yi ngay ñaanal sa mbokk julit heure boo ñaanalee sa mbokk julit ci kumpa suñu borom yebal malaaka mu ne amin yal na la yàlla may lu mel ni li nga ko ñaanal moo tax julit ñi di ñaanalante am lu ca yàlla farataal ca mooy la nga xam ne mooy jullig néew heure boo xamee ne julit faatu na julit ñi dañoo war a daje muy fardul kifaaya ñaanal yàlla jéggal ko suñ ko deful ñoom ñëppay am bakkaar su ko defee julit buy dund da nga koy ñaanal buñ ne laa diw dee na nga ñaanal ko buñ koy jullee nga ñaanal ko buñ ko suulee ba pare nga ñaanal ko fu sa xel demee ci moom nga ñaanal ko loolu mi ngi noonu rabbana xfir lana wa li ixwani allazina sabaquna bil iman ñaareel ba it mooy julit da ngay ñaan yàlla nga bañ a doon kuy jàppal noonoo sa mbokk julit mbokk loolu da ngay xeex ak sa xol ngir bañ a bañ julit bañ a noonu ak julit te xam ne loolu mbokk day wàññi say daraja ci yàlla rasul sallallahu alayhi wa sallam toog nañu ak sahaaba yi ba mujj mu ne am na kuy ñëw dey ci niti àjjana yi la bokk kenn ci waa ansaar yi dugg si bañu demee comme yu mel noonu nit ñi daawuñu ko waxante ndax yonent bi bàyyul ba mu ñëw da ko wax avant muy ñëw kon secret la léegi kii di abdullah ibnu umaru ibnu al-as daa di dem ca kër góor ga da ko suñ caam man daal dama am problème ak suma waa kër bëggoon toog fi rek ñetti fan mu ne ko ah bismillah nee na mu toog dara indi woo ko lu dul xool nu muy jaamoo yàlla ba yonent bi seedal ko lii mais nee na man lan laa gis ci moom bu julli jotee mu dem jàkk ji julli naa naafila it heure bi li ñuy yew naafila rek la yew gisuma daal lu particulier li mu def ba ñetti fan yi ma tey mu ne ko waa góor gi man jotewuma kenn waaye nag dama lay seedeel ne yonent bi alayhi salaam day daf na yow mii yaa ngi ci nit ci àjjana yi nga bokk waaw lan ngay def ba yonent bi seedaloolu mu ne ko ah xanaa li nga gis lenn daal laa xam ne yàlla may na ma ko man du ma bañ julit du ma mere julit julit lu ma def baal naa ko mu la ko nag foofu nga yegg lañ yeggagul ñun yaa ngi dégg yàlla nañ fa yàlla yeggale mbokk loolu nekkul lu yomb loolu nekkul lu yomb yàlla nañ fa yàlla yeggale loolu nag da nga koy ñaan wala tajal fi qulubina ghillan lil lazina amanu gannaaw ba nga ne yàlla innaka raufur rahim te mooy ñaan yàlla jéggal la ñeewante ci yow muy arafa yërëm la noonu ngay ñaanee sa ñeel sa bopp njëggal ak yërmaande noonu nga koy yéene bépp julit loolu tax julit fu mu dajeeg mbokk julitam asalaamaaleykum wa rahmatullah fu mu tisoolee yarhamkullah deena ah yar yarhamahullah ila axiri loolu mbokk mooy la nga xam ne lu jëkk li amma bu ñu delloo ci ñu yées ci nit ñi yàlla wax nañu ñetti groupe yi gën ci nit ñi muhajirun ansar ak taabiin ba lay mujj ñi yës ci nit ñi mooy mooy naafiq mbokk yéeféer yi dafa am ñu gën a bon ca ñoom naafiq yéeféer la mais lii problème am mooy moom daa sol bubbum jullit ànd ak jullit ñi di leen trahir suñu borom mu ne xoolal naafiq yi te loolu mi ngi daloon ci Abdullah ibnu Ubay ba nga xamee ni nii histoire bi ñu doon nettali agar bi passé yonent bi ndar kepp na la nga xamee ne nii mooy ba bandu nadir fexe nañ ba yónnee ci abdullah na ko waayu abdullah luy xalaat mu ne résister leen ñun duñu du bu ngeen bu doon tey dañ leen di génne ñun waa suñu giir yëpp dañu ànd ak yéen te bu décidé xeex leen ñun dañ ànd ñëw dimbisi leen dimbali leen borom bi ne xoolal li ñuy wax rek ñi nga wax ak seen doomi ndey kon mbokk naafiq yi ak yéefiir yi ñooy doomi ndey jullit ñi ñoom neen ñooy doomi ndey borom bi subhanahu wa taala ne déedéet buñ leen doon génne du ñu génn ci effectivement bañ demee ba cëppaandong ba suñu borom dogal ñoom ñuy génn naafiq yi génn ñu ànd ak ñoom bu doon dañ leen di xeex du ñu xeex ak ñoom te bu doon dañuy ànd ak yahudi xeex leen it daan dëddu daw wane gannaaw ci kenn du leen dimbali mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
فأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني فلما كفر قال إني بريء أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء
barakallahu fiikum suñu borom jalla wa ala mu ne la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min allah ey yéen jullit ñi de xam leen ne yéen a gën a tar nu leen naafiq yi ragale ca nañ ragale yàlla zalika bi annahum qawmun la yafqahun di waral loolu mooy xeet lañ boo xam ne amuñu benn dégg-dégg laa yuqaatiluunakum jamian illa fi qura muhassana naka noonu it ñooñu nga xam ne ñooy yahuud ya dañu nekk di xeex ak yéen lu dul dañoo nekk ci dëkk yoo xam ne dañ koo peeg daal di koy protéger muy ay tata aw min waraai judur wala ñuy xeex ak yéen ci gannaaw ay miir ba'suhum baynahum shadid seen ay ci seen diggante ñoomu neen lu tar la tahsabuhum jamia da nga leen di jàpp ne ñoom ñépp a ànd wa qulubuhum shatta doonte ne seen xol ya lu teqalikoo la zalika bi annahum qawmun la yanqiluun li waral lii day mooy xeet lañ boo xam ne ñoom duñu xellu kamasali lazina min qablihim qariba dañoo mel ne ña nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon di lu jege muy bann xuy naaqa zaaqu wabaala amrihim moson nañu la nga xam ne mooy seen ñaawaayu jëf yi walahum azabun alim te dana leen ñeel mbugal mu tar ka masali cheytaan mi ngi mel ni rek misaalu cheytaan is qaala lil insaani ukfur jamono bi mu wax doomu aadama weddil waay falamma kafara ba mu weddee qaala inni bari'un mink mu ne ah man day deñ naa ci yow bu mat sëkk inni axaafu allah man dama ragal yàlla rabbal alamin mi borom bindaafan yi fa kaana aaqibatuhuma noonu lay nekk seen mujj ñoom ñaar annahuma fi naari xaalidayni fiha na ñoom day daan tabbi sawara sax fa ba faw wa zalika jazaau zalimin loolu nag mooy payu bépp tooñkat mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ni ñi nga xam ne ñi yahud yi ragal gi ñuy ragal jullit ñi ragaluñ ko yàlla ci seen boroom mi seen boroom ndax ñoom xeet lañ boo xam ne amuñu ak dégg te mooy xam nañ aayey borom bi waaye dégguñu ko mi ngi noonu mbokk suñu borom daa dimbilee yonent bi alayhi salaam la ñuy tuddee ar-rahba nusirtu bi rahb masirata shahr yonent bi yàlla moo ko dimbilee moo ko saxaabaam yéeféer yi dañ leen a ragal ba début l'islam di xew avant ñuy xare badr suñu borom yàlla dafa ne woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam su ngeen matee fukk da ngeen dàq téeméer su ngeen matee téeméer da ngeen dàq junni ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñu fu ñu juddoo ñoo bokk fu ñu yaroo ñoo bokk li ñuy lekk waaye lan mooy différence bi mooy jullit ñi ngëm bi ñu àndal ñoom dañoo xam lan la yàlla diggaati ci jihaad xam ku ci dee lan moo lay xaar mu safaanoo ak yéeféer bi nga xam ne wóor na ko ne mi ngi xeex dëgg ca bu dee yahud ya ca gëm xam nañu sawara lañ jëm yaa ngi fexe noo mën na fexe ngir bañ a mucc benn xalaatkat bu mag waxoon na ko ci Afghanistan jamono yi nga xam ne ñoom ànd nañu di xeex te yàlla tax di xeex la nga xam ne mooy communiste russe yi fa ñëwoon nekkoon presque deuxième puissance mondiale ñu dàq leen mu ne ñu ne waaw lii lan moo ko mën a waral ñii nga xam ne amuñu benn moyen lu ñu fexe ba dàq puissance bi waa ji mu ne force yi ñoo bokkul mu ne xale yi nekk Afghanistan ku ci xëy sa yéene yépp mooy nooy def ba rayub yéeféer ca am ngërëmal yàlla mais ba dee ba bokk ci shuhadaaw yi mu ne bu dee militaire russe yi nag ku nekk bu ñu la fa affecté six mois bu su bu nekk yaa ngay compter tey ëllëg tey ëllëg yaa ngi yaakaar jël say dàll ba daw ngir bañ cee bañ fee dee kon ñoom ils ne comprennent pas moo tax barab bi ne laa yafqahuun amma julit yow yaay ki gëm ne jihad fi sabilillah amul pertement lan moo fa nekk ihdal husnayayni imma nga gañe wala imma ñu gañe la soo gañee gañe nga àdduna ak àllaaxira suñ la gañee rey la pay yalay xaar àllaaxira kenn mënu ko xam laa yafqahuun borom bi nag ne xam leen yahud du xeex ak julit lu dul ci gannaaw dëkk yoo xam ne dañ koo protégé looloo taxoon ñu ëpp ci ñoom dëkk si woon Madina ndax Madina dafa nekkoon ci benn genre cuvette boo xamee ni nii gis ngeen ghazwatul ahzab bi yonent bi fermé benn côté ba rek yéefar yi am ñu fuñ jaar ba dugg Madina wala ci gannaaw ay miir mbokk miir bi ba ko yàlla tuddee ëpp na quatorze siècle ndax yéen jeunes yi gisu leen miir bi Israël tabax diggante ak Palestine naam ci quatorze siècle yàlla waxoon na loolu mu ne xanaa ñu nekk ci gannaaw miir ma gis benn lettre bu yéeme boo xam ne nee nañu secrétaire général des imams moo ko bind bind ko la nga xam ne mooy ambassadeur Israël di ko félicité ci riposte yi muy def di rey palestiniens yi ne palestiniens yi ñoo ko tooñ mi ngi noonu palestiniens yi ñoo tooñ donc Israël am na droit riposter loolee mbokk kenn ci ñu ñuy tuddee imam fii nekk ca grande mosquée nee na mooy secrétaire général moo bind lettre boobee ñu ngi koy publier ci internet bi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mbokk kooku il ne comprend pas moom moom tamit laa yafqahun ñoom tamit ala kulli xaal suñu borom nee na ñooñu yahud yi neen ay lu tar la seen diggante yéen a ngi dégg Israël parti travailliste parti Likud te mooy ci xeex lañ dëkk Isaac Isaac Rabin seen premier ministre ba ku ko reyoon ñu mu neen mu ne da nga leen gis benn la ñu fekk ñu déedéet noonu gu rëy moo nekk seen diggante te effectivement boo fa demee yàlla les orthodoxes ak les nangam yoo xam ne jubawuñu ba'suhum baynahum shadid waaye seen xol moo teqe moo teqalikoo donte ne lii it benn ñaax la ci jurit ñi mbokk ba doon bi doon wax naan yahudi yi ñoom da ngay jàpp ne benn lañu xol yaay wuute mu ne jurit ñi nag tey dañoo ñoom jëmm yi wuute nañu xol yi wuute loolu da lan lenn doo nga koy waral pas-pas yu yàqu walla waaye mbokk jurit lañu xam ne lu ñu mën a wax pour boole jurit ñi tant que delluwuñu ca cosaan du ñu ànd ba ila yu ma jéem tant que ñun ñëpp gëmuñu ne yàlla mooy benn yàlla benn alquran mooy suñu sukkandukaay ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam mboolem yi ñu sos yëpp ku nekk jàpp ne fii rek la kenn fii rek la kenn fii rek la mboolem yooyu nga xam ne dañ koo sos nit ñi bàyyi ko dellu ca ca datt ba datt ba nga xam ne moom mooy alxuraan ak sunna ak la sahaaba yi nekkoon lii rek mën a boole jullit ñi leneen lu dul loolu mënuñu fexe ba jullit ñi ànd ba ilaa yawmi diin mi ngi noonu baram boobu nag subhanahu wa taala nee na bani nadir li leen dal moo daloon bàyyi na xuy na xuy naqa trahiroon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jëkk leen génne madina waaye mi ngi mel ne rek cheytaan cheytaane day topp doomu aadama na ko weddil mbokk weddi googee cheytaane du ñëw sob nopp naan la weddil ngay dégg déedéet waaye dalay taaralal kéefér ba nga dugg ci bokk na ci taaral kéefér fexele ba bàyyi loolu julli moo tax gaa yi xam ngeen ne am na ñoo xam ne cheytaane fexe ne ba bàyyi loo leen julli bàyyi loo leen woor bàyyi loo leen aj makka te nee nañ ay jurit la ñëw na am cheytaane def na loolu cheytaane fexe ba dugal la ci njabar suñu borom yàlla mu ne laqad alimu la man ishtaraahu ma lahu fi l axirati min xalaq njabar boobu xam ne ne ki dem jënd ko àlaxira du fa am dara cheytaane day puus doomu aadama ba dugal ko ci te mooy lépp loo xam ne ak kéeféer la cheytaane dana ko taaralal doomu aadama dugal leen ci soo demee ba dugg ci kéeféer ga nag mu ne a saa waay alko nga comme ni ma alko mu ne dañ naa ci yow pare naa ci yow man damaa ragal yàlla borom mbindaa fan yi doonte ne ragalam googu du ko jëriñ dara mi ngi noonu ndax ragal balaa jëriñ da lay yóbbu def ndigal bàyyi tere waaye ragalul dul mbugalam ci dana dajeg mbugalam borom bi nag nee na noonu lay àndeek ñoom ñoom ñaar ñu ànd tabbi sawara xaalidina fiiha mu ne lii mooy payu képp koo xam ne da ngaa tooñ tooñkat yi mooy lan mooy ñay bokkaale seen borom bañ koo jaamu mi ngi noonu Cheikh Ousmane
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بارك الله فيكم سني بروم جل وعلا مني يا أيها الذين آمنوا أيين نيغا خامن داغي نغم اتقوا الله اي واي رغال لين يالله wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad e way bépp bakkan na xool lan lay jiital ñil ëllëg wattaqullah te ngeen ragal yàlla inna allaha xabirum bima taamaluun yàlla day ko ñàkk kumpala ci lépp li ngeen di def wala takunu ka lazina nasullah e way bu leen mel ne ñi nga xam ne dañoo fàtte yàlla fa ansaahum anfusahum yàlla fàtteloo leen seen bopp ulaika humul fasiqun ñooñu day ñooy ñi nga xam ne dañoo génnuk topp laa yastawi ashaabu nnar du yem mukk ña nga xam ne ay ñooñu sawara lañu wa ashaabul janna ak ña nga xam ne ñooy ñañuy àjjana ashaabul jannati humul faizun ña nga xam ne nii ñooy ñañu àjjana day ñooñu dong ñooy ña nga xam ne ñooy ña texe law anzalna hadha alquran ala jabal alxuraan jii de bu doon ñun yàlla dañu koo wàccee teg ko ci montagne la raaytahu xaashia da ngay gis mu nekk di aju toroxlu mutasaddi an doon loo xam ne nii luy nekk di tasaaroo la min xashiyatillah ngir toroxlu ga nga xam ngir ragal ga mu ragal boroomam wa tilka al amsalu nadribuha linnas lii de mooy misaal yi nga xam ne ñu ngi koy dóoral nit ñi laallahum yatafakkaruun ngir nit ñi mën a xalaat ci lii mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax e yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ragal leen yàlla mbokk ngëm ak ragal yàlla bokkul yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ne yàlla kenn la bu leen ko bokkaale yéen ñi gëm ne sàngara xaraam na moytu leen ko yéen ñi gëm ne dañoo war a génn zakat génne leen ko yéen ñi gëm ila axiri ca mooy atte yàlla dañ koy gëm ba pare doog koo jëfe nag mu bokk musiba bi gën a nekk lii ne musiba yow jullit nga xam ne lii yàllaa ko santaane ba pare nga lànk bañ koo def lii yàllaa ko tere ba pare nga koy def loolu mandargay maxdubi alayhim la mooy ñi yàlla mere mu am nag lu ko gën a bon mooy ko gëmut bokk na nga xam ne nii ci nga xam ne dina jullit la waaye du julli la muy def ak a bon bu dee gëm na ne daa war a julli mooy xam ne ne jullit la yàlla ko dig la waaye nag du julli la muy def ak a bon ak bari ci ndaw ñi nekk fii sunu jeune fille ak garçon yi ñoo xam ne majeur nañu ci duñu julli duñu respecté julli donte ne xam nañ julli moom faratal lañ ko war a def waaye mu am ko gën a bon nag koo xam ne gëmul julli moom kooku mbokk loolu ak yéeféer la lépp lu yàlla digal la atte ko ki nga xam ne du koo gëmul kooku yéeféer la looloo tax borom xam-xam yi dañ naan bàkkaar bu way mën a def kenn du tax ñu ne yéeféer la lu dul da koo daganal waa ji nga xam ne nii musul naan sàngara waaye na ah sàngara dara newu ci kee nga xam ne bus bu ne mu naan ba tëdd ca mbedd ma ca xam ne sàngara daa xaraam kooku moo ko tane ndax ku jëkk ki dañ naan yéeféer la ndax daa weddi aaya alquran kii moom dañ naan faasiq la kàccoor la rek bu nekk ci bàkkaar yàlla bu ko neexee mu baal ko mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ni képp kenn ci yéen na xool li muy waajal pour ëllëg e yow doomu aadama xamal ne fii dañ fee jaar rek léegi ñu dem dañ fee jaar léegi ñu dem fañ jëm mooy suñu saxuwaay lépp loo mën a dajale fii fi nga koy bàyyi ba mu des say jëf ku nekk na xool lu muy waajal ëllëg la nga xam ne mooy bakkaar ya nga jot a def e waaye tuub ko tuub gu sell bala ngay dem ëllëg la nga manqué ci tuyaaba ci ay santaane ngal la waay taxaw ci bala ngay dem ëllëg te xamal ne wallahi gis nga bis ba bis ba faatoo sa doom yi la gënoon a jege sa soxna yi sa kum mën a doon bala ñoo mën a añ bala ñoo reer dañ la gas suuf suul la bàyyi la foofu am déet kon yow mi xellu fexeel ba xool la nga xamee ne ëllëg moo lay jëriñ tanzur nafsun ma qaddama li ghad borom boobu subhanahu wa taala nag mu ne ragal leen yàlla yàlla dara ump ko ci seen jëf bu dee bàkkaar yaa yàlla dara ump ko ci yu bari fàtte nga ko moom fàttewu ko lépp looy def tu lu baax dara ump ci yàlla lépp mi ngi la koy dencal borom bi mu ne bu leen mel na ñuy fàtte yàlla mbokk fàtte yàlla bokkul ak masalan boo demal Amérique tey da ngay gis lu ñu wax God God yàlla yàlla mi ngi noonu waaye fàtte yàlla mooy fàtte ay ndigalam bu leen bokk ñu mel ne dañoo fàtte ndigal yàlla ak tere yàlla yàlla fàtte loo leen lu leen di jëriñ fàtte loo leen seen bopp mbokk xam nga ko fàtte boppam mooy ka nga xam ne bis bu xëyee dana sangu juróom-ñaari yoon ut oto bu rafet kër yu rafet lu ne def na ko waaye fàtte na lu koy xaar alaxira kii fàtte na boppam waaye ki nga xam ne moo fonk boppam xalaatal boppam mooy kii waajal ëllëg su ma dee fan laa jëm mi ngi noonu bu leen ñooñu nga xam ne fàtte nañu yàlla suñu borom yàq mu ne fàtteloo naa leen la nga xam ne mooy seen jëriñu bopp borom bi nag nee na ñii ñooy alfasiqun mooy ña nga xam ne dañoo génn yoon wa leen yàlla rëddaloon ngir ñu sax ca borom bi mu ne xam leen ña nga xam ne ñooy ñooñu àjjana ak ñooñu sawara du ñu yem ña jëm àjjana ñooy ñetti xëy ca loolu mbokk jullit yi yow ndawal jullit xoolal képp koo gis ci àdduna ak loo ko mën a gisal pal la alal la siiwaay la xoolal ndax lii lu koy jegeel yàlla la di ko texeel la am déet su dee ne lam nekk nekkul ci loo xam ne yoonu àjjana la nga looy bu ko ñee ci loolu xamal nañu texe àdduna ak àllaaxira mooy ña nga xam ne ñooy ñeñu àjjana ñan ñoo ñooñu àjjana mooy ñu tege ci yoonu àjjana toppi ndigal yi bàyyi tere yi wallahi ñi rek ñoo ñuy texe te loolu mbokk jullit dañu naan la mu saf ka ko mos a ko xam xam leen na àdduna bi ñi ci gën a texe mooy jullit ñi juboo ak seen boroom am tawxid bu wóor bokkaale wuñ ko dara nangu ay ndogalam di jaamu yàlla borom bi mu ne allazina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaika lahumul rahmanul am na ñoom ñoo am dal ñoo am sécurité la nga xam ne tey moom la Occident ñàkk ñoo am dal sérénité sécurité ñan ñoo ko am mooy jullit ñu jubba ak seen borom man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mumin fala nuxiyannahu xayatan tayiba képp koo xam ne gëm nga yàlla jëfi ndigal yàlla yàlla mu ne maa lay dundal dund gu tey dund gu tey ay milliards du ko joxe ay gouvernance du ko joxe siiw du ko joxe la koy joxe mooy sa borom bi la bind moom sa xol moom àdduna kon ulaikumul faizun looloo tax julit lu ko mën a dal ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu lahu xayr julit léppam yiw la natt yi da koy jéeg ne lii ci yàlla la jógee daf may nattu ngir yëkkati samay daraja ngir baal ma samay bakkaar fa huwa xayrun la lépp lu ko indil ci xéewal du ko bakkoo du ca bewee da koy delloowaat ci li neex yàlla fa huwa xayrun la borom boobu nag daal di bàyyi loolu daa dina alxuraan jii ma leen yónni yéen yii fiir yi ngeen won ko gannaaw lu bari ci jullit ñi it doyee dal ko xol yu yàqu rek moo ko waral waaye suñu borom mu ne day responsabilité bi nekk ci alxuraan su ma ko tegoon ab montagne da ngay gis ne montagne ba dana exploser ngir ragal yàlla ca mbokk ngaa yi montagne ndax dana njaaloo ndax dana sàcc ndax mbokk montagne dana bokkaale waaye nee na su ma ko joxoon sat alxuraan dana toroxlu ba tasaaroo ngir ragal yàlla te loolu it borom baa ngi ñu ko wax wa inna min alxijarati lama tafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yaxruju minhu alma wa inna minha lama yahbitu min xasiyati allah am na ca montagne yoo xam ne daañ dem ba mujj ñu mabb ngir ragal nga ragal yàlla loolu it moo tax ba yow julit del jéem a sàmm sa xol di dundal sa xol ba alxuraan am ci yow jeexital ak a néew julit ñu alxuraan di jooyloo ak a néew ak a néew julit ñu alxuraan di tiital bañu bañu bañu nelaw comme na nga xamee ne nii noonu la daloon dala sahabatul kiram mi ngi noonu nettali naa leen fi yàggul dara rek ko Omar doon àtteeg soxna sa nanguwul jege soxna si guddi du bëccëg Omar na ko lu waral lii mu ne ko ayu ibn amirul muminin man day inna fi kitaabillahi la taxfifun jalal alxuraan moom ma tiital ba mënumaa tëdd ak jigéen di am bànneex mu ne ko hey alxuraan boobu moo la digal nga takk ñeenti soxna gis ngeen ala kulli xaal mbokk julit ñu bàyyi xel lépp luy lëndamal xol yi te bokk na luy lëndamal xol topp wax ju dul jeex seetaan lu amul njëriñ déglu ay futilité yooyu yépp nag daje na tey ci portable loolu day lëndëmal xol ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala ni lii misaal la bu may dóoral doomu aadama yi ngir ñoom ñu xalaat ne la ëpp ci ñoom ragaluñu yàlla nañ ko war a ragale yàlla na yàlla dolli suñu ngëm dolli suñu ragal yàlla mi ngi noonu Cheikh Ousmane
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
jazakumullahu xayra suñu borom yàlla mu ne huwa allah mooy allah mi yàlla allazi la ilaha illa hu moom mi nga xam ne kenn yoyowul ñu koy jaamu ku dul moom aalimul xaybi wa shahaada moo xam lépp luy kumpa ak lépp luy feeñ huwa arrahman mooy ki ëpp yi ci ëmb ci yërmandeem mboolem ay jaamam muy arrahim ka nga xam ne mooy jagleel ña nga xam ne dañ koo gëm lii dig yërmande huwa allahu alladi laa ilaha illa hu mooy yàlla mi nga xam ne kenn yeyewul ñu koy jaamu ku dul moom mooy almalik moom dong mooy bóoru dëgg alquddus mooy ka nga xam ne mooy ku sell ka assalaam mooy ka nga xam ne mooy ku mucc ka almumin ka nga xam ne mooy gëm ay jaamam wala ku leen di dalal almuhaymin mooy aji seede lépp di aar lépp al aziz moo not lépp ci kattanam aljabbaar moom dong mooy aji mbëruja almutakabbir moom dong mooy ka wone ak rëyam di rëy rëylu subhanallahi amma yushrikun sell ñeel na yàlla ci lépp luñ koy bokkaaleel huwa allah ki ñu war a jaamu mooy allah alxaaliq moom dong muy aji bind albaari mooy kay feeñal di génne la mu bind almusawir moom dong mooy kay melal la ko neex lahul asmaul xusna ñeel na ko mboole mi tur ya gën a rafet yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard dana sax di ko sabbaal lépp lu nekk ci kaw asamaani ak suuf wa huwa al aziz te yàlla moomu moo noot lépp ci kattanam alxakim mooy ki xereñe ki mi ngi noonu mbokk julit mbokk julit suñu boroom bi ñuy jaamu julit bi da ko war a xam xamuñu ci moom lu dul lam ñu xamal wala yuxiituuna bi cheyin min ilmihi illa bi ma shaa suñu boroom bi feeñ nañu ci téeréem bi ci ay melokaanam ñetti aay yi ñu tiim wane na ci fukki melokaan ak juróom benn yoo xam ne da ko melawoo jalla wa ala lu jëkk mu ni xam leen ni laa ilaha illa allah kenn yooyewul ñu koy jaamu lan mooy jaamu kenn yooyewul ñu koy yaakaar kenn yooyewul ñu koy woo kenn yooyewul ñu koy sukkandiku kenn yooyewul ñu koy ragal kudul allah mi nga xam ne mooy kenn ki allah moomu nee na mooy alalim mooy ki xam lépp loo xam ne nii kumpa la na doon li fi jaaroon ak lii ñëw ba passé bi si penc borom bi nee na xam ne lépp te moom rek moo ko xam la nëbb ak li feeñ borom boobu mu ne mooy arrahman ki melawoo la nga xam ne mooy yërmaade arrahim mooy yërëmaate yeneen borom xam-xam yi di ko teqale arrahman mooy ki nga xam ne yërmaandem ëmb na moo leen mi jaam boo ko tey bu ñu la waxoon ku gën a bon ci kaw suuf ak koo mën a xalaat ñu ngi noonu ki gën a bon ci kaw suuf bu ñëwoon tey tey tuub yàlla baal ko yërëm ko daay kii mooy rahmaana mi ngi noonu ca yàlla nga koy may mi ngi dund mi ngi noyyi mi ngi lekk ca ay noonam lañu waaye nag loolu àdduna la yem amma alaaxira lay jagleel jullit ñi yërmaane goo xam ne amul fu mu yem yonent bi alayhi salaam jox ñu ci misaal nee na yàlla téeméeri yërmande la bind jël benn séddale ko minna fanam yëpp bàyyi màkkudul bàyyam yëpp mu sédd leen benn quatre-vingt-dix-neuf yi mi ngi ko jagleel waa ajjana yàlla na yàlla boole ñu ci gis ngeen borom boobu mu ne mooy yàlla mi nga xam ne kenn yiwul ñu ko jaamu kudul moom moom dong mooy buur sunu maam jane yàlla yaay di buur ku woote buur nga xëy rey de nga xëy rey des di buur waaye ana buur yi fi doon nekk siècle yi passé yëpp ñëpp dem nañu kon aji moom ji buur dëgg mooy yàlla mooy alquddus alquddus mooy ku sell ki nga xam ne amul wàññeent ca màggaayam ba amul fu mu yem moo tax amul doom amul nawle amul kuñ koy dendeleel amul lu mu tële wala alquddus mooy assalaam ki mucc ci bépp ayib yahud yu bon ya ñu ne yadullahi maghluula mi ngi noonu ñee jiñ ko doom ñee jiñ ko leneen mu ne déedéet mooy assalaam mooy ki mucc ci lépp ca noonu li mucc ci tooñ wala yazlimu rabbuka ahada du tooñ kenn ca mooy jàmm moom dong mooy maye jàmm it allahuma anta salaam wa minka salaam mi ngi noonu borom boobu mooy almu'min almu'min dana doon aji gëm mooy ku dëggu jëm ci yàlla gëm ko yàlla nangul la sa ngëm googee mi ngi noonu doomu aadama mën nga ko wax dëgg ca du xam ne yaa ngi koy wax dëgg amma borom bi képp ku dëggut jëm ci moom moom gëm na la bu dee dëggu nga rek gëm na la mi ngi noonu donte ne am na ñu ne al am na it ci la jógee moom mooy kii may ay dal ña ko neex ci ay jaamam almuhaymin mooy ka nga xam ne mooy seede lépp yàlla seede na lépp yàlla mooy aar lépp comme na nga xamee ne noonu la alquran di seede yeneen téere yi muhayminan alayhi borom boobu mooy al aziz ki nga xam ne lépp lu mën a doon moom moo ko not jalla wa ala teddaangeem ba dara tëwu ko loolu tax muy aljabbaar aljabbaar mooy këmbaru tey jii buur yi woote jàpp nañu moom kaw suuf di tëral seeni loi di rey doomu aadama yi di imposé wu bis la ñëw rek aljabbaar ñëw jël la faat la mënoo ci dara quel que soit effort bu mën a def aljabbaar lañ la jël moom dongin moo am droit bakku al mutakabbir képp ko bakku yàlla bañ na la koo mën a doon ci jaamu yàlla bis boo bakkoo rek yàlla bañ na la loo tax lay gën a dugal doomu aadama yi sawar mooy alkibru mooy rëy rëylu yeneen ci bi alayhi salaam nee na du dugg aljanna koo xam ne dafa nekk misqaala zarra ci xolam ci la nga xam ne mooy ay rëy borom boobu it mun a sell ñeel na ko ci lépp luñ koy bokkaaleel borom boobu nee na moom danga mooy alxaaliq hal min xaaliqin xayrullah ndax am na keneen ko mën a bind ku dul yàlla déedéet mboolem waa adduna yëpp buñ daje woon mënuñoo bind benn weñ mënuñoo bind benn yoo mooy alxaaliq gannaaw ba borom ba mooy albaari mooy kay feeñal la nga xam ne moom la bind ba nit ñi mën koo gis te yàlla lam bind ci gisuñu ko moo ëpp sax bay xool lam bind ñu koy gis waaye albaari mooy génne lam bind mooy almusawir mooy le grand dessinateur mi ngi noonu mbokk julit xoolal tey jàkka ji ñi fi nekk ndax man ngeen ma fee génneel ñaar ñu nuroo kanam yi benn la ñun ñëpp am nañ ñaari bët am nañ bakkan am nañ gémmiñ d'accord mais ndax ñaari kanam yu nuroo am na ci jàkka ji déedéet ndax ñaari kanam yu nuroo am na Sénégal déedéet ndax globe terrestre ñaari kanam yoo xam ne benn la am nañ déedéet man naa jege yoo de waaye mu doon benn amul amul ba àdduna sosoo ba tey ñaari nit ñoo xam ne seen kanam benn la amul xoolal xale yoo ji def génie en herbe léeg-léeg dañuy génne benn waay ñu ne kii kan la ah Napoléon de la de la porte ñu génne keneen De Gaulle Jules Ferry ah roi Faysal roi Nangam kii Senghor kii Lamine Gueye lu tax mooy ñaari kanam yoo xam ne benn la musul am ci kaw suuf am déet boo xamul nag mën nañoo doon benn ci nuroo waaye boo xamee ñu leen xam rek mu mën leen ràññeetle am déet kon kooku muy mbokk al musawir yi nga xam ne moo bind des milliards et des milliards ci bàyyuma yi ci doomu aadama yi ci amul benn bu ci bokk ak benn mi ngi noonu ñu daan kasak bu njëkk naan ca toolu Baye Bour Ndiaye mooy nag ya bëri nuroo sàmm mën a ràññee bi sëñ tam daa nga dégg looloo ba day gis téeméeri nag ñu ànd nga jàpp benn lañu waaye sàmm moom ku nekk xàmmee ne la am déet gis ngeen kooku mooy mbokk al musawir borom boobu jalla wa ala nag nee na ñeel na ko mboole mi tur ya gën a sell tur yooyee am na ci yu ci rot ci alquran am na ci yoo xam ne yàlla xamaloon na ko jaam yi fi jaaroon am na ci yoo xam ne yàlla denc na ko ci xam-xamu kumpa ba nekk ci moom te noonu la ko yonent bi alei salaam doon ñaane yàlla maa ngi lay ñaane ci bépp tur boo tuddee sa bopp wàcce ko ci téere bi wala nga xamal ko kenn ci say jaam wala nga denc ko ci xam-xamu kumpa bi nekk ci yow mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag ne mi ngi koy sabbaal di sax di ko sabbaal la nekk ci kaw asamaan ya malaaka ya biddiw ya jant ya weer ya ak lañ fa xamul ak li nekk ci kaw suuf lépp mi ngi sabbaal yàlla imma ci làmmiñam wala ci xaal ba ko yàlla binde borom boobu baamuwaat nag ne mooy al aziz ki nga xam ne dara tëwu ko jalla wa ala waaye mooy al hakim lépp lu muy def du ko defe ci kattan kese waaye da koy defe ci xereñi lu nekk teg na fa mu ko war a tege bépp atte xool na nam nam gën a jëriñe ay jaamam mu atte ko noone benn jëng amu ca benn tooñ amu ca mbokk lii mooy melokaanu borom bi yal nañu yàlla boole ci ña ko gëm gëm ay melokaanam yal nañu boole ci ñi muy jéggal yërëm leen adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain